mbokk yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñ borom ci kàttanam ak manam mu leenu ba suñu réew mi jàmm gën fee sax lépp lu diw ay suñ borom génn ko fi génn ko ci àdduna sépp itam xam nañ ne loolu sax yëmbut waaye nag suñ borom moom mën na lu nekk te sañees na koo ñaan lu ne ndax lu lépp ci loxoom la nekk te lépp itam sañees na ko koo ñaan ak nu mën a demee ndax da koy joxe rek kon ñu ngi koy ñaan nag suñu borom ay yi nga xam ne war a yëngatu yi nga xam ne am na te doonut lu gën kenn ñu ngi ñaan suñu borom mu woyofal ko seddal ko dalal ko bam ñëpp pour gën a delluwaat ci seen xel gën a tal li nga xam ne moom lañ doon def gën koo mën a def dañ ko xam ne nañ ko bëgge woon loolu suñu borom jàpp ko mën na ko yàlla ko defal ginnaaw loolu ñu tàllal suñu loxo di ñaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom mu man te mooy borom kattan te moo mën a def lépp Cheikh Mamadou taxaa mii nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba suñ borom gën koo jox kàttan gën koo jox ak biir gën koo jox ak tal ba lépp loo xam ne yéene ne koo defal lislaam ci kaw yoonu Serigne Touba yi mu defe ko na mu ko bëggee te daje te daje ci ngërëm te ñu ànd koog moom te daje ci ngërëm suñu borom loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla na ko defal yàlla na ko suñu borom yi itam defal képp koo xam ne lislaam mooy sab tool yàlla na suñ borom gën a dëgëral gën laa jox kàttan gën laa jox man ba lépp loo xam ne yéene nga ko defal lislaam nga def ko ni nga xam ne na nga ko bëgg ba defee ko nu kawe sa jot te da nga daje ci ngërëmal suñu borom te ànd koog ña nga xam ne ñoom nga ko àndal ginnaaw loolu nag ñu nekkoon di di fàttaliku ak di nafaraat ñu nekkoon di fàttaliku ak di nafaraat lu jëm ci julli ndax dañoo toll ci weeru woo xam ne weeru julli la ñu nekkoon nag ci ajuma ji weesu di waxtaane li nga xam ne moom la ñuy tuddee faratay julli ñu ne woon nag buñ ko bëggee tënk tënk bu gàtt boo xam ne yow doo yow dangay teg julli ci sa kaw ci sa kanam rek mel ni yaa ngi koy xool di xool kay julli lépp bépp bépp jëf joo xam ne am na tur woo xam ne tur bokkut ak yee ca tur bu bedd beddiku la jëpp jëf joo xam ne am na tur wu beddiku te nga njëkk koo gis ci kay julli def ko xamal ne loolee mooy moom farata la lam defaat nag ginnaaw booba loola nag mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy tuddee loolu nag lañ bëgg waxtaanee tey kenn jenn rek lenn rek lañ gis loo xam ne kiy julli dana koy njëkk a def ta du doon du doon farata te am aw tur mooy taayo ju njëkk danañ gis ne kii julli dana ko dana ko def ndax kon day mel ni benn julli yi dafa tàmbalee ci ci julli suba nga xam ne kon yeneen julli yi la ñuy gis taayo ju njëkk ak taayo ju mujj mu mel ni kon julli suba googee taayo ju njëkk jën taayo jooje ñu ci gis da nga xam ne amul lu deesu ko defaat moom mënees na koo tudde farata waaye bu dee julli yi nga xam ne julli ëpp na ñaari rakka muy julli ñetti rakka yi wala julli ñeenti rakka yi gis nañ ne danañ ci def ñaari taaye waaye taaye yooyee taaye ja ñu njëkk a def ci sunna yi la bokk bokkut ci farata yi te gis nañ ne jëf ju ñu njëkk a def waaye foofu nag kon moom la fi nga xam ne mënees na wax ne benn mooy benn barab bi nga xam ne am na jëf joo xam ne des na ko njëkk a gis te doonut farata muy sunna leneen lu dul loolu nag jëf joo njëkk a gis rek kiy julli def ko tam am aw tur xamal ne loolee moom la ñuy tudde farata bu ko defee nag bu tey kon li ñuy waxtaane mooy farata boo ko bàyyee nan ngay def ñaareel ba itam ñu bëgg waxtaane sunna moom mooy lan ak boo ko bàyyee nan ngay def loolu lañ bëgg waxtaane tey farata boo ko bàyyee moom mooy nan ngay def mooy bu fekkee ne dangaa bàyyi farata ci benn rakk ba duggaat ci beneen rakk bi te fekk na ba nga koy fàttaliku tàmbali ngaa jàng ñaar ñaari rakk bi kon da ngay daal di da ngay daal di xam ne rakk boobee nga xam ne moom nga fàtte la nga fàtte tam tudd far tam doon farata rakk boobee moom mu baax a tudd da nga koy defaat le li nga xam ne nag mooy maanaam boo xasee bàyyi benn rakk boo xam ne fàtte nga cee loo xam ne farata la te bi nga koy fàttaliku fekk na dugg nga ci ñaari rakk ba tàmbalee jàng kon doo doo delluwaat da ngay da daal di bàyyi jàpp jàpp ne rakk boobu boo baaxul rek nga fayar ko bu dee nag ba nga koy fàttaliku cekk na tàmbali goo jàm tàmbali goo jàng rakkaab bi tàmbali goo ciy jàng da ngaa jóg bay bay bëgg a tàmbali rek far fàttaliku ko li ngay def mooy da mel ni da ngay da ngay da dangay da ngay da ngaa waroon a taaya wala da ngaa waroon a sujjóot te fàtte ne sujjóotuma waaye bi fàttaliku ne sujjóotuma booba tàmbali gu maa jàng ci ñaaru rakkeer lu may def mooy kon damay delluwaat def sujjóot ba bu ko defee sujjóot ba damaa waroon a toog damay toog soog a jóg def mottali julli gën a war a ma noom mate waaye du ma ñëw rek daal ne damay jàpp sujjóot bi rek def ko bu jeex déedéet da ngay def la nga xam ne moom topp ci sujjóot ba itam boo bu ko defee nag soog a mottali julli mottali julli ga boo mottalee julli nag boo noppee xam nga ne am nga looy dolli ci biir julli gi te bokku ci ndax am na maanaam dolli nga dolli nga ci dara loo xam ne bokku ci julli gi loola nag la koy defar mooy kon da war a sujjóot sujjóot xabla salaam mooy bala ngaa sëlmal boo taayee ba taay jeex bala ngaa sëlmal nga de nga sujjóot ñaari sujjóot boo soo soog a sëlmal ñaareel bi nag bu fekkee ne nag bi nga koy ta bi nga koy fàttaliku fekk na nga tàmb nga nga tàmbali ci ñaareel ba moom da nga xam ne kon rakk boobee baaxut da nga koy defaat bu ko defee boo noppee sujjóot su sujjóotu sël sël sujjóot boo xam ne da koy def ginnaaw bi nga sëlmalee ba noppi bu fekkee ne nag sunna la te sunna yi mooy yi nga xam ne ñooy moom lañ la wax ne li nga njëkk a gis njëkk yee teg sa bët mooy farata la ngay tegaat la ngay gisaat te tegaat sa bët na nga xam ne loola mooy sunna mi ngi mel ni kon bu ma gisee bu ma bu ma waxee allahu akbar ngir dugg ci julli gi naa daal di xam ne kon ah, kabar boobu moom ci farata yi la bokk yeneen kabar amaan na kon ma daal di xam ne yeneen kabar yi ñi amaat yëpp te sunna la ndax njëkkuma koo gis ginnaaw bi laa njëkk gis yaa laa laa gis bi ma defee kabar ba noppi laa soog yooyu ñaareel ba itam ginnaaw boo ginnaaw bi nga kabaree kabar almal xam nga ne faatiye nga jàng kon nga daal di xam ne jàng yi moom ci farata yi la bokk ginnaaw bi nga jàngee faatiye am na ca teg mooy teg nga ci aw saar wala aaya yi nga xam ne moom nga mokkal loola itam nga daal di xam ne kon fa saar wala aaya yooyu nga xam ne moom nga mokkal jàngaat ko na nga xam ne kon loolu ci sunna yi la bokk ñaareel ba itam boo boo jiital gi ngay jiital taaye gi gi ngay jiital faatiye ci aw saar itam nga daal di xam ne loolu farata la joo xam ne moom it dañ ko war a def moom lañu war a jiital sañoo jiital aw saar ba noppi soog caa teg faatiye déedéet faatiye ngay jiital soo noppee teg ci saar ndax faatiye mooy farata saar wi nga ciy teg wala aaya ya ngi ciy teg moom mooy sunna ñaareel ba itam mooy taaya yi nga xam ne moom ngay njëkk def ci julli goo xam ne ñetti rakka la wala ñeenti rakkaay na nga xam ne taaya joojee moom ci sunna yi la bokk beneen ba ci tegawaat mooy julli gi nga xam ne moom la ñuy julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam ci taaya ju mujj ji nañ xam ne loolu itam ci sunna yi la bokk liqaam itam ñu xam ne ci sunna yi la bokk waaye nag moom xam nañ ne moom la ñuy njëkk a gis bala ñoo julli waaye li li yonent bi waxoon ne julli mi ngi tàmbalee ci kabarub armal yem ci salaamaaleykum daal di xam ne kon ta liqaam bokk gu doon a duggalagudoo ci julli gi da lay xamal ne rek da war ngaa tàmbali julli waaye duggagu ci julli gi kon loolu moo tax moom mu ne su ko boole ci farata yi ci sunna yi la bokk loolu nag moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag xam le ne bu fekkee ne nag sunna yii nga xam ne moom la ñuy tuddi ay sunna da nga cee bàyyi benn boo ko bàyyee te tay ko moom julli ga day yàqu waaye bu fekkee ne da nga koo bàyyi ngir ngir njuumte rek da ngaa war a sujjóot sujjóot boo xam ne da nga koy def ginnaaw bi nga xamee ne taayee nga ba bala ngaa sëlmal nga def ñaari sujjóot boo boo ko defee daal di sëlmal soo nga soog a sëlmal loolu ndax loolu nag li ñu ko won mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas di julli ba mu jullee ñaari benn ràkk war a war a a war a delluwaat war a ju ba mu jullee ñaari ràkk war a toog taaye waaye moom mu mel ni daa fàtte na daa war a toog taaye doonte loolu warees na cee am am jànget ndax ñu bare ñoo xam ne dañoo bëgg a woyofal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mbindeef képp la loolu ak njuumte la ndax dañuy xam ne njuum teg yonent bi sallallahu alayhi wa bu amutoon kon ñun ñi nga xam ne ay doomi aadama képp lañ te amuñu lu ñu àndal kon kon buñ juumee nan la ñuy def loolu la ñu xam ne kon njuumteel jàngale la waaye doonul njuumteel wane ne mbindeef rek la ko mbindeef yëpp njuumteel jàngale képp la waaye du njuut njuumteel wane ne moom moog doomu aadama ñoo yam day fàtte comme ni ñëpp di fàttee loolu ñu bay ñu bàyyi ko xel ci bañ a di woyofal jii ma woyofal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wane ne mbindeef képp la ngir li nga xam ne xew na xew na tam wane ne moom mbindeef la bi mu fa bi nga xamee ne dafa waroon a taaye te jóg jóg daal di jëm ci ràkkab ñaar ñetteel ba wala mu jëm ci ràkkab ñeent mu jëm ci ñetteel ba wa mu daal di ñu daal di koy wan ne ko da waroon a toog taaye ñu sàbbaal ko bi ñu ko sàbbaalee nag booba fekk na moom jóg na ba noppi waruta waruta dellusiwaat ndax mi ngi ci farata ndax farata mooy jóg na ngir tàmbali jàng faatiye te mënut a bàyyi faatiye jooje nga xam ne farata la di dellusiwaat ci li nga xam ne mooy. loo xam ne sun sunna la muy taay taay ju njëkk kon li mu def mooy dafa continuer julli ga ba mu julli ga julli ba mu jullee ba julli ga jeex mu daal di sujjóot sujjóotu la salaam mooy sujjóot sujjóot boo xam ne day day day defar day defar loolee nga xam ne moo yàq woon ci ci ci fàtte gi mu fàtte woon taaya ju jëkk yi loolu nag tax ñu xaade ñu jànge ci ne jëpp sunna joo xam ne fàtte nañ ko li nga xam ne moom lañ koy defaree mooy dañuy sujjuut ginnaaw buñ taayee ba noppi bala ñëw sëlmal ñu sujjuut ñaari sujjuut soog a taayee sëlmal soo soog a sëlmal loolu mooy li nga xam ne moo koy defar kon yàlla suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan mooy borom man te moo mën a def lépp yàlla nañu dimbaleel boppam ba ñaari musiba yi nga xam ne mi ngi ni bëgg a jaaxal muy yëngutu yëngutuk Sénégal ak ñaareel ba ja teguwaat mooy xew-xew yi nga xam ne moo xew ci àdduna te ñëpp te daj fépp daj ko kapp mu doon loo ne moom rek moo ci man dara yàlla ñu dimbaleel boppam ba xew loolu yi nga xam ne moo daj kapp àdduna si muy wéradi gi yàlla na ko suñu borom tegg ci àdduna si ba mu jeex tàkk képp koo xam ne dal na la yàlla na la wéral képp koo xam ne dalagula yàlla na la musal bu mu la dalati te tegg koo ci àdduna si ba mu jeex fi ñaareel bi nga xam ne mooy yëngatu gii nga xam ne moom la senegal yëngatu yàlla nañu suñu borom dimbaleel boppam bañ delluwaat ci dal bëgg gën delluwaat ci suñ suñu xel xam ne ay doomu aadama lañu dara xajut ci ñun dara xajut ci ñun ndax dañoo doyadi nit ku doyadi nag dara xajut ci moom kon lépp loo xam ne luy ay la xajut ci moom yàlla na ko moom suñu borom mi nga xam ne moo ko mën a tegg nag yàlla ñu ko teggil ba lépp loo xam ne fi ñu war a jaar ñu di fa jaar ni ñu war a doxe ñu di ko doxee ndax loolu mooy li nga xam ne mooy tax ñu ñu mën a mucc loolu mooy tax itam jàmm man fi am yàlla ko suñ borom def moom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal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 وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يميني شمالي يا رجاء يكني وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يميني شمالي يا رجاء يكني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم